ñu ngi dalal président union sociale libérale nekk itam avocat maître Abdoulaye Tine am na nañu mbégte dalal la ci matinalu réew mi FM. waaw Fatou maa ngi lay fay di la jaajëfal ci dalal bi di am mbégte di dellu fii ci seen plateau pour waxtaan ak seen auditeurs yi tey ci suba. li gën a fës ci actualité jamono ji mooy f bi ñu taxawal ak dialogue politique bi ñu tàmbalee kuréel googu lan moo waral USL euh, jàpp ni daf ci war a bokk ba tax ngeen soobu ci liggéey yi. waaw ni daf ci war bokk ba ci liggéey bi du dara lu dul nii euh, plateforme boobu tey li nga xam ne moo ko tax a taxaw dafa nekk li nga xam ne ci la USL mos di xar tànk tubéyam euh, bu ci njëkk moom mooy tey yéen ci teg seen bët euh, fii ci Sénégal mën nañ jàpp ni lu ñuy woowee liberté maanaam àq ak yelleef yi nga xam ne moom lañu ñu constitution may daanaka dañuy continuer saa su nekk di gis ñuy ñu ñuy nërmeloo di dellu ginnaaw firnde bu ci mujj moom mooy eh, démb rek gis nañu classement bi nga xam ne moom mooy organisation muy kuréel bu ëmb ñi nga xam ne ñooy journalistes yi ci àdduna bi ñu koy woowee RSF Reporters sans frontières année bu nekk dañuy natt teg benn xayma boo ko jëlee Ah, maanaam Sénégal euh, dellu na ginnaaw lu tollu fanweeri poñ ak benn maanaam jóge na ci 73e place euh, ñu euh, ñëw ci 104e place loolu laata moo daanu yàggul dara weer yi passé déggoon ngeen benn rapportu département d'État américain bi nga xam ne moo doon firna loolu donc loolu moo tax effectivement ñu jàpp ni bu amee benn kuréel bi nga xam ne dafa ëmb euh, société civile euh, ak société politique taxaw temb ne day xeex pour ñu aar ak ak yelleef yooyu mënuñu rek lu dul dugg ci bokk ci ñi nga xam ne ñoo ko sanc muy poñ bu njëkk bi beneen poñ bu ci tegu euh, mooy suñu constitution coow li bëri na Euh, mais coow li coow li yëpp guddal jël la parce que constitution bi moom euh, article 27 euh, du ñun ñoo ko tëgg ñun opposition ñoom ci seen bopp ñoo yeewu woo sénégalais yi ne dañu bëgg a def référendum yàggul dara sax je pense démb la woon ñu ngi doon partager fii su présentation maanaam question yi nga xam ne moom la ñu doon posé askan bi ci référendum boobu ñu gis ni effectivement euh, mbirum euh, dàq ñetteeli mandat fii ci Sénégal ci lu ko tax a jóg la mais aussi fexe ba abadan coow lu duut fii amati moom la ministre de la justice doon waxee clause d'éternité léegi nag euh, ñaara mën a am soit ci référendum boobu bañ koy woote ba ñuy tëgg vingt 27 bi dañoo fexewu dañoo ñoom lu leen taxoon a jóg moom mooy dox ci xelu sénégalais yi maanaam dafa buxum lu tubaab di woowee fraude à la constitution maanaam ne da ngay dem ngir dooleel mais ndikate di nga taxawee noonu ne da ngay dooleel yaa ngi wut porox ndoll pour ñu mën a am safaanu li nga xam ne moo taxoon constitution bi taxaw loolu bu ñu ko defee euh, euh, loolu moom comme lu ñuy wax ci tubaab Euh, la fraude ne pas créatrice de droit donc loolu tam du antu port donc mbirum constitution bi dama jàpp ni euh, tey sax amatul débat et que euh, temps yi da ngay dégg saa su nekk kenn ñëw taxaw ci diggu làng bi ne waaw am na avis conseil constitutionnel bu ne président mën a def ñetteelu mandat mais ñooñu tey laaj buy samp moom mooy est-ce que lire nañu avis bi Euh, tey su ñu déggee émission bi ku ci nekk mën nga dem ci internet bi xool avis bi fenn ci avis bi doo ci gis sax ñuy wax ay mbirum candidature laaj ba ñu mu laajoon moom mooy est-ce que ndax mën naa wàññi jóge juróom-ñaari at indi juróomi at conseil constitutionnel ne ko man ci suma xalaat tënku ko. xalaat la bu ko neexoon mën na def. li nga xam ne moom la wàccoog askan bi mais defu ko mais parce que xalaat ba euh, def ko arrangé et maa ngi laaj sax est-ce que ndax laajuñu ko laataa ñu ko siiwal mais lu ci mënti am moom mooy euh, finalement loolu boo jëlee avis bi ñoom dañuy jéem a sukkandiku dégg naa ko xamatuma ndax France 24 quatre wala TV5 mu naan amatul débat moom mooy xool c'est clos juridiquement non na diraat avis bi na jël fukki minute fu temps mu liir abi bi et ci avis boobu doo ci gis fenn fu ñu wax mbirum mandat et boo sukkandikoo ci abi bi ci boppam nga liir ko bu woowee boroom xam-xam yi nga xam ne seen xel dañu màcc ci mbirum constitution ñu jàngat ko ko firil ko ko dana xam bu baax ne avis boobu boo ci sukkandikoo lu ñu koy wax moom mooy mandat bi askan bi moo la ko jox askan bi li nga digge woog ñoom da leen ni juróom-ñaari at donc doo ko wàññi parce que mënoo ko yokkuta léegi bu ñu sukkandikoo ci raisonnement boobu tey bu ñu jàppee ne aussi constitution bi askan bi lu ñu diggawoo moom mooy fii ci Sénégal dañuy fexe ba kenn du fi def ñetteeli mandat mën nañ jàpp ni sax Habib boo ci taxawee rek doy na pour régler problème bi hmm. loolu mooy ñaareeli poñ bi ñetteeli poñ bi moom mooy kuréelu attekaay bi nga xam ne mooy cour de justice de la CEDEAO hmm. ñun union sociale libérale ànd ci ak kujje politique bi dañ ko saisiroon ba loi wu bi amee. ñu dugaloon recours ci weeru décembre 2018 ba euh, décision bi mu ngi daanu finalement euh, le 28 avril 2021 ndaam ba nu demee taxaw ci ëttu attekaay boobu nga xam ne mooy cour de justice de la CEDEAO mu nekk ci Abuja mu nekk kuréel bi nga xam ne. ñi nga xam ne ñoo gën a xarañ ci sous région bi ci mbirum yoon bokk ci ay tradition juridique ay dëkk yu boole bokkul mooy ñii di wax portugais ñii di wax anglais ñii di wax français ñooñu xamuñu Ablaye Tine xamuñu Macky Sall ñooñu ñoo gëstu xool ponk ak yi ne que dafa xëtt yoon ne ko mbir mi foog loi bi mu neenal ko ci diirub juróom-benni weer ba sànq ci suba mu ngi lànk ba carré ne du ko jëfee te mënul wax sénégalais ci lan la wékku te du ko jëfe parce que bu mu ñu wax souveraineté bu leen souveraineté la mandat bu nga xam ne moo ko permettre mu dugg biir Gàmbi dàq yaa Jammeh ci protocole bi la donc kooku moo tax ñu ne dinañ taxaw temb ngir mu jëfe arrêt boobu et que yi di ñëw bu soobee yàlla parrainage du ci am bu ci mujjee nag moom mooy coppite yi nga xam ne di woon na ko ci code électoral bi. muy article vingt neuf. trente cinquante sept te lu ko taxoon a jóg du dara lu dul fexe añ seet euh, xañ ay nit ñu bokk ci élection wu deux mille dix neuf bi mosu ci làqatu loolu boo leen ko tax a jóg parce que mbir moomu ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci mbirum yoon. xam nañ ne loolu sax doo ko gis ci jeneen dëkk yi nga xam ne Sénégal a leen gën a avancé ci mbirum démocratie mais comme daa am lu ñu namoon ni ne dinañ ko am coûte ko coûte loolu moo taxoon ñu tëgg ko teg ko tey le fait même d'ailleurs ñuy toogaat naanaat euh, ministre de la justice gëstul dan lañu ñu mën a fexe ba ñooñu euh, euh, jotaat seen yelleef bokkaat dellu si ci langue bi daa am li nga xam ne lay wone ñaari mbir que laataa ñu ko def noonu la ñu toogee woon aussi ne ministre de la justice woone seeni i fexe leen xool nu ñuy def ba duñu bokk mais que finalement rek il est salutaire en tout cas que seen xel dellu si ñu xam ne loolu lu dëgg du yoon et que ça ne les honore pas et ça n'honore pas la démocratie sénégalaise bu dee taxaw nañ pour dindi ko euh, kooku benn poñ la mais aussi ci plateforme bi en tout cas ñu taxawuñu pour yelwaan dañu war a taxaw pour nangu ak ak yelleef yooyu jëppal ko ñi nga xam ne ñoo koy ci lan ngeen nar a sukkandiku ba wañ yi ngeen fi lim notamment ne ko dinañ wañ sa loxo bu jëree sax ñu damm sa loxo pour nga bokk 2024 ak mm. yeneen ak yeneen yoo xam ne parrainage bi def na deux ans nangu ko a sukkandiku ba wañ loxoom mu def li ngeen bëgg. waaw peut-être ñun en tout cas bu ñu waxee ne dañuy wañ loxoom euh, waxin la ci olof. Euh, ñoom nag bu dee dañoo narar wañ loxoom. ba damm ko ba damm ko euh, ñooñu ñoom ñoo ko sañ ñun sañuñu ko ñun. nuñ ko nar a xeexee moom mooy li nga xam ne dañ koy teg ci dëgg teg ko ci yoon li nga xam ne moom la ñu constitution bi may tey boo waxee mbirum parrainage bi luñ ci xeex dañ ko teg ci yoon ëttu attekaay moo ñu jox dëgg tey amul benn xeetu rapport de force bu Macky sàll mën a engagé ba gagné ko face à l'opinion wala face aux institutions internationales ne ñun nekkuñ ci dëgg parce que ñoo nekk ci dëgg ba ilaa yow mi diini du mos a indi safaan bi parce que xam na ne lu mu def lu dëgg lu yoon loolu tey yàgg nañ ci dox ñu ngi ciy dox aussi ay jéego euh, tey dama jàpp ni sax bu demee bay woote mbirum jaloog ne pare na pour dugal ci parrainage bi alors que bëggul woon sax dëgg mbirum mu delluwaat ginnaaw ci mbirum parrainage bi parce que xam na ni yàgg-yàgg dëgg dina ñëw parce que tey ëttu attekaay bi dogal bu mu teg nekkul pour Sénégal kese nekkul pour yeneen état wu CEDEAO bi mais dafa tënk kuréel yi nga xam ne mooy CEDEAO te CEDEAO ñëpp xam nañ taxawaayam ci mbirum élection fii ci rôle bu ñu ciy mais du ñooñu kese partenaire u Sénégal yi nga xam ne ñooy Union européenne dugal ay koppar yu takku ci mbirum élection yi ba ñu ñëwee fii ci weeru juin chef de délégation bi passé nañ benn journée ak équipe man ma dem fa taxaw jël kàddu won leen ci mbirum arrêt bi ak lan mooy porte bi njeexital bi ci ak lan la ñu namm lu ñu war a def comme révision ñu pare ci seen rapport suivre nañu recommandation yooyu mais yemul foofu maanaam même Sénat bi nga xam ne ci élection yi doon nañ ko saisir muy jàppal tànk gouvernement wu Macky mujj nañ delloo si seen xel ne mbirum kii bi parce que dem nañ ñoom dugg ci ay situation yi nga xam ne bañ leen waxee ñu ardu mais mënuñu indi tontu parce que dañuy ñëw rejeté ay nit hmm. ne leen ñii Euh, du ñu ay électeurs ñu dem gëstu jëndee fichier électoral bi. wan leen ne am na ñi nga xam ne sax ay conseil municipal lañ. ne leen léegi lii loo leen ciy tontu. mais ba sànq suba dañu ne pat parce que mënuñu koo gérer loolu doo ko wan na leen ni ñun ñoo mos a nekk ci dëgg. loolu aussi ci méthode yi ñu koy xeexee comme ni ma la mooy mobilisation populaire. loolu moo tax aussi. que F24 bi juddu ci circonstance yu mu juddoo nekk kuréel bi nga xam ne ëmb na woy politique ak société mais aussi nekk na bu juddu ci anam bu gaaw am aussi dayo bu doy waar parce que président ndax mu ngi doon njort ne bu waxee mbirum troisième mandat askan bi dana génn jàmmaarloog moom wante mosula njort ni dana gaawee nii. ñu ngi ciy sant yàlla. ci ay rassemblement ak mobilisation ngeen nar a teg seen xeex waaye maître du ma la ko yëgal fii opposition bi société civile ñaari manifestation wala ñett yu ñu fi tëgg benn bi lañ leen di autorisé yi ci des yëpp ñu gazé leen bu Macky Sall naree jaar ak yéen foofu nu ngeen di def. waaw loolu nag may may sax occasion. ma wax ak Macky Sall. ci dal ci yar ak teggin. mais aussi ci kaddu bi nga xam ne. te lu ko moom mooy fit bu mat gis nga manifestation 12 mai bi. bu mu ko jéem a bañ ak opposition bi. parce que opposition ci démocratie. ñaar ñoo mën a am. moom mooy da ngeen di nangul li nga xam ne moom la démocratie maye. ñuy ñaxtu. comme nu ko constitution waxee. wone seen ñàkk ànd wala seen ñàkk d'accord ci mbir. ñu wone ko ci rassemblement pacifique. ci wax wala ci bind. jàmm ne ñooy. bu ko deful bëgguñu ñu xañ liberté. alors que nañ ko teg ci yoon teg ko ci dëgg ñun du ñu am beneen possibilité du ñu may le choix que lu dul ñu demander ci quitte le pouvoir parce que loolu mënoon nañ ko demander depuis le 28 avril 2021 ba arrêt bi daanoo moom xam na ko ña ko wër xam nañ ko mais am na ñu ñëw wax ñu fexe dal am bañ a yëngal dëkk bi ñu jàpp ni stabilité bi moo war a primer ci yenn yi ñu taxaw téye suñu tànk tey nag ba nañ jàpp ni tey fu dëkk bi toll lu ëpp tuuru maanaam Macky Sall dafa dépassé ligne rouge bi te ku lépp dépassé ligne rouge comme lu ñuy wax ci wolof ñu jëlëb sa loxo mais woote na dialogue lii lépp dem waxtaan yi gënu ko woon yomb ngeen dem wax fa li leen naqari am ci ay solution mais waxtaan moom euh, gis nga moral lu mu lalee religion maanaam gëm yàlla euh, mënoo ko wax te waxoo mbirum moral euh, démocratie mënoo ko wax te waxoo mbirum dialogue mais ban xeetu dialogue ni ñuy wax ci wolof ku ndóbin rey sa maam boo séenee lu ñuul daw woote woon na dialogue bañ koy soog a fal le 28 mai 2019 maa ngi woon ca ndaje ba ñu toog wax ma dégg moom moo ñu ne bii mooy sama ñaareel ak mujjanteelu mandat nekkatuma ci ay mbirum njuuj njaaj man su ma paree damay dem lii may leen woowe nii dafa nekk waxtaan bi nga xam ne dama ko lal ci dëgg bëgg ngeen jàpp ci ñu rafetoon njort trop. ba ma génnee sax loolu laa wax. ma ne ko lu mu wax nii de. faraluñ ko woon dégg. dañu koy en tout cas. Euh, jox préjugé bu favorable euh, mu jëloon engagement. ne lépp li nga xam ne. jën jënne na ci waxtaan bi te waxoon dafa bëgg mu nekk ay waxtaan yu yaatu société civile syndicat parti politique moom jën na engagement pour jëfe ko ñu amoon ci yaakaar bu bëri mais aussi représentant wu opposition toog fa ci contexte bu metti parce que mbirum Covid beeg yooyu yëpp ñu ngi doon am mais ñu koy wóyal ba am na ñi nga xam ne sax ñu nga doon jiite Covid bi ñu ngi doon jiite <laughs> dialogue ba ñu ci donc mu nañ génn àdduna mais yàqalul que kuréel gi taxaw na ba ñu jox ay recommandations mais ba sànq ci suba mais recommandation yooyu. yu ko neex la jël comme nu mu ko faral di defee. appliqué ko yu ci des. mu ne noonu la ñu ne déedéet déet mu tegal ñu processus électoral donc mayul sax ab ab opposition bi ñu waxtaan seen biir wala ñu mën a organiser ripost loolu moo tax ñu jàngat ci lu bëri bu ñëwaatee ba app bi jege mu jël décret ne mu ngi réviser liste yi maanaam ñu ngi binduwaat wala soppiwaat ci liste yi euh, ba tëj bu ñu woowee dialogue ci biir boobu ci biir processus électoral bi dañ koy naan jërëjëf. te loolu yëpp dialogue waroon ko régler alors maître mooy doon laaj bu mujj bi waxtu bi dab nañu euh, avocat militant droit de l'homme bi nga doon peut-être yooyu casquette yëpp ci laa lay interpeller ci li xew tey. muy ay retour de parquet ay garde à vue yu gudd gudd ñu bari d'accord ne salfaañi ak ak yelleefu doomu aadama la est-ce que coppite yu mel ni juge des libertés ak yeneen réforme yu ñu proposé woon pour justice bi dina ñëw régler yii problème nga xam ne méngoowul effectivement ak ak ak yelleefu doomu aadama. waaw kooku jàpp naa ko jàpp naa mbir moomu bu ñu ko bëggee saafara. en tout cas solution bi création wu juge des libertés de la détention ci la bopp euh, mbir mi du dara li nga xam ne lu dul lu nga xam ne def li la neex la. wékkuwul fenn retour de parquet doo gis benn texte. code pénal bi nga xam ne moo ko prévoir. xam nga la mooy retour de parquet. parce que peut-être foog ma leeral ko pour ñu koy déglu. moom mooy yoon dafa ne fii yow. bu dee dañu jël ay tuuma teg ko ci sa ndodd ñaari fan ñetti fan wala ñeenti fan lañ la mën a téye sa dépend ci tuuma yi nga xam ne ñu la teg hmm. xeetu tuuma bi nga xam ne hmm. infraction bi nga xam ne moom la ciwee mais boobu bu jeexee ñaara mën a am dañ la mën a bàyyi nga dellu sa kër wala ñu yóbbu la jàllale la pour ñu jàllale la dañ lay def mandat de dépôt foog juge décider moom moo koy def mais fii Sénégal moom mooy dañuy lay téye ba àpp garde à vue bi jeex. bu nekkoon France. amul sañ-sañu benn policier wala gendarme. gis nga de ils sont tellement prudents. que laata garde à vue bi di jeex. Euh, dernière heure bi. du jël sax risque. yegg ci danañ la bàyyi nga dellu. bu dee juge bi statué wul. dañ lay bàyyi nga dem. Ah, jox la c'est délimité 48 heures. non mais c'est que loolu détention arbitraire ci boppam fonctionnaire bu ko def. Mm. day engagé responsabilité personnelle loo def te yoon prévoiru ko rek maanaam yow en tant que nit yaa ko def tayeef la loolu moo tax kenn bëggu ci yegg mais Sénégal fii àpp bi day jeex ñu téye la naan retour de parquet juge amul alewu parquet yu kenn xamu ba li mujj def boobu mooy feebar wala ngay miir wala nga daanu ci biir kaso bi ñu lay yóbbu pavillon spécial loolu moo tax ma jàpp euh, loo gis rek day am fu muy dooree mbirum seen naataango bi comme Babacar Touré ñu koy woowee dama jàpp ni parce que Babacar xam naa ko yàgg nañu liggéey foog ñu jël mbiram bi mu nangu. mu nekk cas bi nga xam ne dañ ko yóbbu ci ëttu àttekaay yi sur le plan international. pour que Sénégal fii dootuñu am benn policier bu am fit waxuma sax sañ-sañ parce que amuñu ko yoon prévoir ko am fitu téye nit bu dee garde bi jeex na. loolu moom la ñu def ci règlement wu UMOA bi garde à bi parce que loolu Euh, seen naataango Pape Ndiaye mii nekk kaso tey maag moom ñoom Assane Dioma njaay ay juge d'instruction ay procureur passé nañ ci journée ak fondation euh, donc benn fondation allemande bu nekk fii ci dakaar di étudier réforme beeg yooyu di ci waxtaan mu amoon ay eh, en tout cas interprétation gis-gis yu waroo ci juge yi nga xam ne ñoo ko war a appliquer ak procureur yi mais bañ koy yóbboo ci ëttu attikaay bi nga xam ne moom mooy nekk sur le plan communautaire mais léegi Sénégal fii xam nañu ko que présence su avocat dafa obligatoire yoon nag loolu lay doxe mm. donc pour loolu boo tax ma jàpp ni ponk bu am solo la mm. euh, ci li nga xam ne en tout cas moom la ñu namm ci réew mi mu bokk ci suñu programme et que ñun union sociale bu ñu ci yéegee aussi dana mm. danañu ko en tout cas won sénégalais yi wax leen ci yan anam lañ ko bëgg a jëmmalee mm. kon daal malgré li président Macky Sall wax yépp yéen moom yéen a ngi dox jëm ci élection présidentielle bu ñu la déggee ñu ngi ciy dox ay jéego yu takku euh, mu nekk li nga xam ko dialoguewul doo bokk loolu tiitalu leen non loolu tiitalu parce que bu ko Ablaye Wade waxoon ne ku gedd sa yaay aye wala ku dialoguewul doo bokk mais fu mu toog du fi c'est président moom nekkul dara lu dul maanaam ñun 17 millions sénégalais yi. Euh, wóolu lañ la jiital la. mais ëppaloo kenn dara. du jaar jaar. nekkul ne yaa dàq jàng nekkul ne aussi yaay buum yaay buum ku fàttali nag Sénégal fii moom. Euh, buursaay na fi. bés dana ñëw ñu fàttali la. jërëjëf yooyu kàddu la ñuy jeexalee waxtaan wi bi maître Abdoulaye Tine jiital union sociale libérale amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM. waaw Fatou mbégte bi c'est partagé. damay aussi nuyu ci suba si seen euh, auditeurs yi mais aussi seen internautes yi nga xam ne ñoo leen di suivre à travers la diaspora di leen jaajëfal ci dalal bi di leen jox dox na yem beneen yoon. merci